aw bañ koo tabbee ba pare Mballo jaa Thiam xaaru ëllëg ngir sol robu fédération générale des travailleurs du Sénégal moom mi nekk njiit bu bees FGTS mu ngi laaje nguur gu bees bi ñu delloo leen seen yelleef ginnaaw ba ñu am place ci représentation des centrales syndicales bi ñu jaamaarloo ak nguur gi mu jàpp ni nguur gi fi nekkoon moo nangu seen yelleef. na dañu am plus de 10 pour cent bokk ci centrales yi gën a kawe war a mën a wax ak le président laal bi ak monsieur premier ministre te dañoo xeex pour agsi foofu ba nag bu ñu fa agsee nag am na syndic question yoo xam ne central syndic syndicat de base ñoo koy lijjanti am na yoo xam ne ñu ngi koy lijjanti ci bopp. daanaka mat na at ba kii di Sidya Ndiaye nekkoon na secrétaire général FGTS génne àdduna ba tax nag Mbaye Dia Thiam jàpp ni moom pare na assumer ay fonctions xam ne tamit jamono ji war nañu andi saafara ci jafe-jafe yi liggéeykat yi nekk ci wàllum santé di jànkonteel. proposition bi pour loolu lañ def ngeen fekkewu ko ñëpp ñoo ni pour amul benn contre amul benn abstention donc fi mu nekk nii man maay secrétaire général FGTSB loolu tontu na waxi picc a wax kasaw ñuy dégg fu nekk. lu toll ci ñaari téeméer ak ñeenti fukk ay délégués yu jógee ci département Sénégal ñoom ñoo tabb Mballo Dia Thiam ngir mu nekk secretaire général FGTS moom mi ngir bu bees bi nee na mu ngi xaar taxaw temm lii di plainte boo xamante daal jamaaleewam muy di Moussa Sissoko bëgg koo teg ci ndodo